allo. salaamaaleykum. na nga def. waaw sant bi ñaa ngi ci jàmm. baax. na ma jot appel en absence ci numéro bi léegi. waa nga dëgg man la Mouhamed Diop maa ngi dëkk fii Casamance. waaw ko soxla. yow laa soxloon nga jégal ma nag baal ma ak nag xam naa nag jutoo maa xam. waaw. man sofoor la waaye suma papa moom fi yónni woon Kër waaw. bu jëli fi fi juma. waaw. waa ci rotation laa mujjee nii paan ci yoon bi moom bëggoon sakku ndimbal nga jàppale ma ci crédit nga ngir yàlla tax ndax mën a xaw pour ma xamal ko ne oto bi dafa mujjee paan nii ci yoon bi hmm. ndaxte maa sànq ba léegi wooguma xaw ma ndax dafa jàpp xaw ma lan la nga jéggal ma nag te baal ma ak nga ni nan la man Abdou Diop Abdou Diop Abdou Diop est-ce que mën nañu waxante mën nañu waxtaan tuuti maak yow waxtaan ci dëgg maak yow tuuti bu la nekkee kay maa ngi lay déglu waaw yow liggéey bii ngay def di wootee numéro yi di xool ay numéro di woote di expliquer histoire bi di di mhm. euh, ñu naan yónnee ma lii damaa paan fii damaa lii daf ma dal et cetera bu ñu waxante mhm. dëgg xam nga ni loolu amul. waaw n'est-ce pas xam nga ni amul. yaa ngi toog sa kër wala yaa ngi toog sa sa saal di seetaan sa télé wala di féexlu di ko wax. loolu loolu loolu loolu nga yaakaar. loolu mooy dëgg bu dee du dëgg waatal ma ngir yàlla ni ma du dëgg ma loolu leer na ma ni looloy dëgg sama digganteeg yàlla xam naa ni loolu mooy dëgg fi mu nekkoo paanoo. yónni wuñu la da ngaa toog di ko def rek. dëgg la wala diggante ak yàlla loolu wóorul la. waaw sama man loolu lu ma leer la parce que est xam nga da nga may du du bii mooy première fois nga may woo. da nga may woo gi ma woowaat te foo ma woowee wax ma même chose te doo ko seetlu. numéro bi rek numéro bi rek moo lay woo. waaw sa numéro numéro bi numéro bi mën naa la wax kañ nga ma woo woon. kañ. xaaral tuuti. xaaral tuuti ma wax la ni la. 78 458 24 09 xaaral tuuti 78 458 24 09. gaawal da nga may yaa ngi may tardel de gaawal tuuti. Ah, <laughs> yow yow yow du maa la woo kay. defal naa loolu tax ma ne ne ma woowee tamit boo ma woowee tamit doo ma tardel di. ah. waaw waaw. en tout daal boo boo xaaree tuuti rek bu ñu bëggee waxante dëgg tuuti rek. ma ne la wax kañ nga ma wowoon wax la kañ nga ma raconté woon même histoire bi encore. te nag ci sama xalaat bu gàtt dangay gaaw tuuti yaa ngi may tardel ci sama xalaat bu gàtt fi ne dafi woo leneen lu dul woo keneen ku mel ni man waxaat ko même chose dafi woo leneen yow xam nga man xam naa loolu loo tax ma ne yaa ngi yaa ngi may tardel dangay gaaw tuuti kay ndax ma a jàpp leen waaw xam nga de xam nga defoo leneen loolu rek ngay def yow da xëy di woote di xool ku nekk nooy amee ci moom dara wala leneen loolu amul njëriñ fi mu ne man ngay tardel dinaa lay dimbali rek dinaa leeral beneen bul mu wax ne amul njëriñ loolu boo ko waxee du ma ko duma ko duma ko nangu ndaxte man am na njëriñ ci man ndaxte ci loolu laa dund. dund ci naxe bi di woote di naxe moom ngay dundee. walla ci loolu laa dund xam nga ñaata kër la ma tabax Ndakaaru. ñaata. ñaata kër la ma tabax Ndakaaru. waaw. benn kër ak terrain. am nga fa am nga fi kër ak terrain. waaw. te noo ko amee ci woote rek woote naan nit ñi damaa paan fii damaa nekk fii et cetera loolu da nga def am ko. téere boobu dinaa ko ci tabax ci incha allahu rabi dinaa ko ci tabax ci lii incha allahu taala ma leeral la ko nag. mais loolu même boo ci amee loolu yow kër googu di nga ci mën a dugal sa njaboot. ah. di ci kër googu ak terrain boobu nga ci tabax di nga ci mën a dugal sa njaboot. waaw waaw ci loolu foofu la ñuy kii foofu la ñuy. ci ay ci ay ñàkku jàmbur nga ko am de. ci ay ak wax lu wala wala ma luwee ko weer ñu fa saako weer ñu may versé ma koy dund ma ak ma njaboot yi. donc ko lekk tamit di ko lekk sa daal moom bañ a kaa lekk. mais loolu riba la di sëñ sama xarit. Abdou ñun yëpp ci ñun yëpp ci riba la ñu dund yi. ah ñun ñëpp ci riba la ñu dugg yow da ngaa xam ne ni ci li ñuy dund. yow sa bopp nga xam ne yàlla ñun yëpp ci riba la ñu dund yow mën a dund gannaaw riba di. non dama ni yow bu fekkente ni loolu ngay dund da ngay dund ci riba di. ma ne. waaw amul benn yaadama ku mën a dund gannaaw riba. ah. waaw waaw loolu moom leer na war naa leer kay. kon bu yàggee kon finalement d'accord nañ ci ni li ngay li ngay woote ak di ko wax amul yow ngay jéem a naxaate jàng may woo di ma woowaat te seetlu woo ko sax. loolu loolu tax ma wax li ma lay wax nii. pour léegi numéro yi yow booy woote nan ngay woote dangay jël rek sa téléphone bës bës bës woote wala da nga am liste wala nan ngay def. loolu waxuma la ko. ah loolu secret la. waaw loolu mooy secret liggéey bi. nga baal ma nag ci jéggal ma man ma continuer sama liggéey nga baal ma waaw continuer waaw waaw bonne chance yàlla na yàlla na la yàlla soppi pexe ba sa xel dellu si nga commencé liggéey comme ñëpp allahuma ma dellu si fan sa xel bu dellu see peut-être di nga bàyyi naxaate ngay ngay xëy di ñax comme ñëpp xalaatuma loolu ah yow daal <laughs> fi nga ko bëgg a jàpp ah, ah waaw kon ñu def noonu xanaa sa njaboot moom peut-être boo boo boo jëmee kanam tuuti bu sa xel sa xel dina dellu si ji man bu ma amee njaboot ñi laa bi nga leen di jàngal. <laughs> Ah, waaw. ah yow moom mënu ma ci yow dara yow yàlla la mën a soppi moom mënu ma ci dara. maa ngi jégal nag bu baax. nga ma def noonu jërëjëf.